voix légitime des jeunes de de Thiès. Euh, salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu journaliste leen remercier également seen présence di nuyu également assistance bi yëpp ak képp koo xamante ni bokk nga ci cellule m ñëw tey pour wuy si wuy bii nga xamante ni ça va également dans le sens n'est-ce pas des institutions de la République comme ni ko Jibi waxee léegi. may rafetlu également la présence de Souleymane Ndiaye Brin bi nga xamante ni ba ñu ànd moom sumb ba léegi. dawul ci lenn te loolu tàmbali na ko boobu ñu juddooguñu ñu koy félicité di ko ndokkeel ci constance bi nga xamante ni am na ko ak ci trajectoire par rapport ak réew mi lu koy tabax lu koy jëmale lu koy jëmale kanam alors du ma du ma guddal damay résumer par rapport ak li ji bi wax su ngeen xoolee li nga xamante ni moom la ñuy sumb tey ànd ko ci ñu bari ñoo xamante ni gisoo leen sax kitaab ñu ngi ci terrain bi dafa am benn cohérence par rapport ak suñu combat parce que li ñu doon wax Ablaye Wade Wade ne touche pas a notre constitution maanaam Ablaye Wade suñu constitution bi ngay jalgati def ko chiffon na ko bàyyi te nu mujj tey loolu moo loolu moo ñu jàmmaarloo woon ñu ak Ablaye Wade ñu jàmmaarloo ak Wade comme moom Ablaye Wade dictateur la mu wan ñu ne constitution bi danaa ko jaxasee nu mu ma neexee ñun aussi ñu koy wan ni ko Sénégal ñu ñëpp ko bokk loolu moo jaroon ñu jël suñu bakkan bi teg ko ci taabal yi ñeneen aussi ñu mel ni ñun jël seen bakkan teg ci taabal yi ba génn àdduna yàlla na leen yàlla ñun ñu dem ci kaso. dama nañ ko trajectoire boobu ak ci cohérence boobu ci lañ ne parce que bi Macky Sall ñëwee am volonté defaraat institution yi bi président Macky Sall ñuy am volonté defaraat constitution bi moom moom say moom dafa am lu ñuy tuddee volonté maanaam gis-gisam la mu am pour coppati mais li ko yoon may mooy mu jël loolu jébbal ko conseil constitutionnel alors bi conseil constitutionnel saytoo nee na ko lii nga wax nangam moo ci mën a am mais nangam mënu ci am. nangam bi ci mën a am nag mooy poñ yi nga xamante ni moom la soumettre à un référendum maanaam moom la jox askan bi pour que samedi dimanche incha allah ñi ngi dem voté ji ko ñu nag boo gisee tey ñu ànd ak président Macky Sall boo gisee tey aussi ñu ànd ak askan bi pour voté oui c'est parce que ñun lañ doon tere Ablaye Wade Macky Sall bi mu ñëwee da koo moytu parce que fa ko conseil constitutionnel xolloo fa la xool point barre tey ñun loolu moo ci intéressé le président Macky Sall dafa respecté conseil constitutionnel. te ñun loolu moo nekkal suñu combat ak Ablaye Wade waat puis ku yeewu la Macky saal parce que dafa comprendre que ni euh, opposition bi ñu ngi am lu ñu koy lu ñu koy lu ñu koy lu koy bëggal dañoo bëggoon mu weddi conseil constitutionnel ba ñoom ñu mën a wàcc ci tali bi. moom moo tax boo gisee tey amuñu amuñu argument l'opposition ñiy wax non ils n'ont pas d'argument par rapport ak référendum yi dama ni référendum askan bi ñoo ci prononcé wu. président Macky Sall jël na fukki poñ ak juróom yoo xamante ni ñun xool nañ ko saytu nañ ko. bi ci gën intéressant ñu jàpp ko mooy désormais léegi dans l'histoire politique et administrative du Sénégal kenn dootul wax ay waxi mandat léegi mandat bi juróomi at la juróomi at la pour ñëpp su jeexee nga dem dootoo amati mandat dootoo euh, euh, kii euh, dootoo mën a présenté wu donc loolu na président Macky Sall def muy une bi nga xamante ni ñun saytu nañ ko xool nañ ko incha allah boobu ba léegi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci terrain bi di véhiculer message bi di xamul ni ñi opportunité bi nga xamante ne am te jàpp nañ ni dimanche incha allah. nit ñi danañ dem voter oui pour le triomphe de la démocratie voter wii pour que suñ ay institution gën a dëgër mais aussi voter oui pour que réew mi nekk ci benn stabilité bi nga xamante ni ma dem wala ma sàmba kenn dootu ci am lu muy ŋaañi leneen nag li ngeen di dégg yooyu ay politiciens la yoo xamante ni dañoo teg seen bët ci photo yu Macky Sall bi il faut qu'on le dise ay politiciens yu teg seen bët ci photo yu Macky Sall léeg-léeg Macky ku bëgg teg sa bët ci photo na xaar ba deux mille dix-neuf nga jaamaaloo ak moom ci terrain bi. mais pour les l'instant c'est à l'heure des réformes maanaam référendum la ñuy invité Sénégalais yi te dinañ ci prononcé incha allah dimanche dinañu également lancer un appel à travers les Sénégalais lancer un appel à travers les Sénégalais parce que dama dégg keroog Front d'Union bi ñu ñëwee Thiès le porte-parole du jour euh, Mamadou Diop de Croix mu ni waa Thiès maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm jàpp naa ni fa ngeen nekkoon ba léegi yéen a nga fa. jëpp Diop Decroix moo wax loolu de mi ngi ànd ak waa front du non yëpp effectivement juumul sax fan nekkoon ba léegi ñoo nga fa ñun moo tax tey ñu engagé wu ñun ñi nga xamante ni ñoom ba ñu nekk pouvoir ba ñu tëjoon juróom-benni weer ci kaso ndax lan ndax bu leen daal constitution bi te ba léegi foofu ñu nekkoon fa la ne Mamadou Diop Decroix juumul fa ñu nekkoon ba léegi ñoo nga fa ñeex jàmmaa la woon ak Ablaye Wade ñu ko bu laal constitution bi mu laal ko ba ñu tëj leen ci kaso loolu lañ fi nekkee ba tey Macky Sall bu mu laal constitution bi wala su ko naree laal na ko jébbal askan bi te loolu la def ñun loolu moo neex ci wax ji point barre fi ñuy jeexale daanele mooy ñu ngi sensibiliser askan bi di leen wax ni leen réforme yi xool nañ ko point yi nga xamante nii moom la président Macky Sall di invité sénégale lay xool nañ ko sayt nañ ko te ñun bu jàkkaarloo yéen wax leen ko war ngeen koo gëm parce que askan bi yéen ñëpp umpale woon ni jooyal ngeen ñu sees ngeen ñu fa ñu nekkoon seen xaalis dem na ci ñun teewal ngeen ñu guddi teewal ñu bëccëg te ñaanal ngeen ñu kon nag bu ñu jàkkaarloo yéen wax leen ni leen ngeen voté dimanche incha allah te voté oui parce que loolu mooy njariñu Sénégal war ngeen a gëm sant na leen gërëm leen te jàpp na ni lii ñuy wax jóge ci xol mais aussi dugg na ci xol alors ñu fi ñuy jeexale xamante ni moom moo ñu may opportunité bi tey ñuy wax ak Sénégalais parce que dafa am solo dafa am solo aussi que bu ñu nekkee boobu la ñu doon jàpp suñu jàmm am suñu ngor sonoluñu kenn lakkaluñu kenn mais aussi ku ñu seet si di ñu teraanga dañ ko wax alors nous remercions également en ces termes monsieur Augustin Tine le ministre des forces armées Augustin Tine qui nous a permis de faire ce point de presse là n'est-ce pour éclaircir les Sénégalais par rapport à ce récent et particulièrement les Thiessois donc loolu lañ amoon ci li ñuy wax ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Souleymane Ndiaye Brin coordonnateur m teew si conférence su. jeune M23 yi xam ni ñoom dafa nañ six mois de prison fii bi ñuy jàkkaarloo Ablaye Wade mu bëgg yàq constitution bi xale yooyu bu ñu jógee tey ah ni constitution bi kenn du ko jalgati li conseil lu wax la ñu war a def président respecté ko président dafa waat bi ñu ko joxee réew mi dafa dem sa conseil constitutionnel waat yëkkati loxoom ni je jure de respecter la constitution et de faire respecter la constitution xam nga waat moo gën a foor ay wax waat moo gën a foor wax sa ñu ma ko waat ñooñu ñooy conseil constitutionnel ñooñu bu ñu demee bañul ko lii ngay bëgg a def fii nga war a jaarale mu nekk ancien premier ministre ancien ministre de l'intérieur nekk chef d'état kooku lu lu respecté constitution lay def loolu mooy position chef d'état mooy position képp koo xam ne da ngaa bëgg tabax réew ci démocratie ak ci jàmm ak salaam loolu moo tax man ma nekk ci ginnaaw xale yi tey li leen gunge li leen jàppale si wuy bi ñu bëgg a taxawal fii si Thiès le 20 mars parce que loolu mooy intérêt askan wi li nekk si 15 points yëpp li si ëpp li si ëpp Macky proposé wu ko Macky ñett li si proposé mooy un mandat de cinq ans deux mandats consécutifs ngay def ak vote bi suffrage direct la à deux tours li si def yëpp ni naan assise ñoo ko def ni naan au conseil des collectivités territoriales kooku mi ngi si charte de la bonne gouvernance yi assise def deuxième page ma fa ñoom ñoo supprimer Sénat ñi dañuy créer le haut conseil de la république ñoom assise moo ko proposé Macky proposé wu ko de haut conseil des territoires Macky proposé wu ko kooku si charte de la gouvernance démocratique ñoo ko proposé ñoom ñoo ne premièrement régime parlementaire deuxièmement suppression du Sénat troisièmement restauration création du Haut Conseil de la République loolu yëpp day invention Macky Macky doo fekk assises yi li ñu waxoon di deux cent articles moom moo gagné de ñee bu ñu gagné woon bu leen neexoon def assise mais ki gagné la kenn mënu koo imposer programme bu Tanor gagné woon Moustapha Niass seen programme la ñu imposé mais ki gagné nag moom mooy dafa mooy mooy mooy président république mooy imposé mooy mooy proposé programme waaw jël na nag li mu yaakaar la réew mi tolloo en min 2016 si réforme dénk ko Abdoulaye Abdoulaye Abdou Makhtar Mbow moo jiitoon assise waxtaan ñu naan doyul assise mi ngi duré 18 mois benn Sigri Sall moo ko ñoo ko ñoo ko initié si Café de Rome Tanor ak ñun ñi benn Sigri Sénégal ñooy créé assise mu dem 18 mois ñu wër 45 département di waxtaane ko ay Wade jóge fi ñu dañ koy appliqué Macky woo commission nationale de réforme des institutions jox leen 700 millions may leen un encore ñu réfléchir ci muy un an ak yeneen 12 mois muy 3 ans yoo xam ne dañ see waxtaan ñu ne waxtaan bi doyul waxtaan léegi mooy le 20 mars peuple bi xam na li ñu war a def Macky day campagne parce que. référendum bi dañu ni référendum initiative président la la ngay proposé yaa koy défendre moo tax muy campagne du élection nationale du élection locale moom moo proposer référendum lii laa bëgg si réew mi moom mu ko proposer moo koy défendre mais doonu damay proposer dara pare croiser les bras ñeneen du la ko waxal moo tax mu wër Sénégal ni quinze points yooyu lay proposé ku si ànd ak moom nga wote oui le 20 mars sa xam na ñu le 20 mars incha allah xam ñu non mënul triomphe fan la mën a triomphe fi léegi la ñu gis euh, seen président Idrissa Seck ñëw si école yi jóge na fii rendu leen Mali Kéré ma nga dem Ablaye Niakhit mi ngi wër école yi takkusaan takkusaan la wër yi bëgg dugg si biir léegi la fa am fii ay histoire ay kata ku laa demee saa nga ñëw Ablaye fii Niakhit ma nga fa la fa la jëm jóge na Mali Kéré dégg naa mu yor bidon ndox ay saafara bu duggul sa école yi ndax bañ a perte xam nga loolu kooku ko dafa jaaxle na waaye le vingt mars moom bu boobaa ah buñ ko baataree de xanaa dina war a tomb noppalu nag définitivement dem retraite parce que moo xoon 62 ans na bàyyi politique sa il a 61 ans ren kon nag rendez-vous le 20 mars ici à Thiès pour célébrer la victoire du oui à Thiès massivement merci